suñu actualité du ginnaaw bi ñu noppee ci eh, que nul Papa San Seck eh, ñu fas yéene waxtaanee rek l'actualité maanaam lu yëngal réew mi inondation au grand premier des titres mm. alors Sonko Ousmane accuse Macky Sall président de la République de détourner euh, de détournement et menace sur la question du troisième mandat qui fait débat ah Ousmane wax na de. wax na kay voilà voilà quelqu'un quand même. Euh... pour un opposant qui est présent. oui qui n'attend pas il, que les élections. Il, il il est présent il est dans sa logique. Mhm. mu ngi mu ngi def mu ngi dox yoonam. Euh, on le on on, on l'encourage à à continuer alors au Sénégal nag quand on est opposant on est très fort. Mm -hmm. quand on est au pouvoir. on est très on faible on est très faible. léegi nag pourvu que kii war a ñëw moo xam Ousmane la moo xam ngeen ku munti doon na fexe ba jàngat bu jël ci situation bi évaluer ko jàng si bu baax pour xam ëllëg li mu war a def kenn mënut def lépp waaye ku yàlla jox réew mi ëllëg incha allah rabbi hmm. defal le maximum. parce que boo defee le maximum te ci biir def le maximum sax léegi-léeg sax mën nga bañ a def le maximum mais boo tegoo si yoon bi ñu nangul la tegul si yoon bi kon dans l'opposition Ousmane mu ngi ci yoon bi moom. xam lu mu wax. Hmm. te loolu nag loolu nag pour man tey Ousmane ko tey procureur de la République daf ko war a woo tey comme ça procureur mu ngi fi question bonne question. gëj na man xaw ma. est-ce que mbënd mbënd mi téew que mbënd mi ko tamit ndox mi dafa taataa. sama xarit la waxuma dara lu aay nag mais koy gëj a dégg nag moo tax ma koy laajte procureur dama lay gëj a dégg rek procureur de la République moo tax ma lay laajte mais dara xewul nag. non lii xam nga est que xam nga. lii comme guerre dafa war a woo comme comme guerre moos. war a woo ah. ah waaw ndax li Ousmane wax dafa rëy. Ah. xam nga booy déglu suñu bokk APR yi ci plateau télé yëpp. te te ndeysaan même dans la communication gis naa l'observateur hmm. di ci àddu tey ci communication euh, palais bi. Hmm. on voit que ils même discours partout. seetlu leen. bu ngeen leen di déglu ci débat yi nii nii nii Pape mm. gi Ndong Abdou Mbow démb mm. <laughs> les autres boo leen di déglu <laughs> suñu xarit Abdou Mbow <laughs> sa waay la nag euh, boo leen di déglu ils disent la même chose euh. ils nous parlent de de de de Cité Soleil cest tous ces compartiments yi daan taa daan inondé te inondéetul te lool du te loolu ñoom bu ñu koy wax état wu Sénégal nañ bàyyi di wax loolu di réeral nit ñi mm. c'est la Banque mondiale ak des partenaires qui ont ah. financé qui ont mis en place la chose donc gars bu ñuy wax loolu day mel ni hmm. ah kon gis ngeen def nañ bàyyi leen yooyu hmm. Hmm. bël loolu bël de la tudd bël de tekkal en passant <laughs> bël de Ousmane Sonko mu ne <laughs> naam sept cinquante wala soixante sept milliards yi ñuy wax ci point de presse mu nu def dem waa mu ne quarante huit milliards lañ ci dépensé ah ci sept cent la ilaha illallah waa anil des ani li des ani li des. man man yow an sa kii ba kii wu maquillage bi nga kii ma tuuti. pinceau bi parce que am na un peu de sueur qui <laughs> tiit. da tiit di. <laughs> pinceau lu ça. 48 milliards. Ah. le procureur la République du a woo Ousmane Sonko. waaw nekkul li nga wax. foo ko teg ana foo ko teg buñ ko woowul rek ça veut dire am na fu mu ko teg fu leer. waa léegi. Hasma <laughs> Mohamed Louisa professeur hmm. ak ñiy setaan. le part démocratique sénégalais nee il faut que ñu fouiller hmm. les programmes et les projet lépp hmm. fouiller fouiller gëstu hmm. parce que nañ sant yàlla nag bu dee 48 lañ ci dépense kay kon alhamdulilah le problème peut être réglé on a de quoi faire de sorte que affaire yi kon solution am na kon kay léegi nañ leen def leen nañ ànd ak président bi nag ñu soñu ko nag ñu li des ci xaalis bi ñu xool fu nu kaa def fu nu kaa defee du mm. dëgg mm-hmm. inondation warul am déwén incha allah. ah warut am de. ginnaaw li des bare na. Mm-hmm. sur dix ans. deux mille yàlla. Mm. huit années yi ngeen ne vingt six pour cent ngeen si def. ci loolu waaw Ousmane Sonko ñëw ne quarante quarante huit mille milliards sur sept cent soixante sept. jege na vingt six pour cent de. ana xaalis bi. ana xaalis bi. ah koppar gi koppar gi na génn anamu. anamu ay waay ñun xiif nañ mar rafle. anamu ah anamu. anamu. Lisa anamu. anamu professeur hmm? ani koppar gi. anamu ani ma gi. anamu. tonton Maba dégg nga koppar gi 700 yi des ci 767. MD. Maba war na ci xam dara nag. waaw yéen ak internet yi. Ah, anamu mi ngi ci ndox mi nee na ko tonton Maba ne mi ngi mi ngi ci ndox mi. maa tooyul bi yee liaas yi yéen yéen bu leen ma yëngal yéen internet yi ani koppar gi. mooy dëgg xel dal na. xel dal na de xel dal na parce que li des bëri na. li des bëri na alhamdulilah en attendant daañu régler problème non non non non je pense que aujourd'hui na na na léegi nguur gi def fast track comme ñoom ci lañ ne. mais ah. tonton Maba nee na. Ah, les sept cent cinquante wala sept cent li des sont inondés day maanaam billet dañoo tooy. bu xottee on a perdu on a perdu. kon kon duñu duñu duñu non Maba boobu wax li ni mel. non. kon nañ jën wax ñu suñ suñu xaalis bi ne. comme quarante huit milliards lañ ci dépensé. Hmm. keroog man li ma jaaxal Sonko dafa wax 48 milliards mais bërki démb dañuy wax ne am na ay source yu ne plus de 60 milliards moo duggagum ci première phase bi kon te bari na lu Ousmane Sonko di wax ci ay chiffres. Mm. c'est un inspecteur. des impôts et domaines. tout à ah, fait donc koo xamante ni buy wax ci chiffre lay lalu te ci lay liggéey moo gën a neex a gëm. Mm. que kuy àpp. neexut a wéet de. te man li ma jaaxal Ousmane Sonko depuis le début. il donne des chiffres oh il donne des détails mm-hmm. te kenn du ko woo mm-hmm. droit kenn ko woo sur les 94 milliards bi ñu waxee assemblée ba di ko woo dana na ma procureur woo moo gën a gaaw mooy processus normal bi mais kenn faalewu ko kon kon bu leen di nag di wax di wax di wax bu yàggee nag ñu gëm ko a ah. te neex naa gëm it ah. ah ne ñoom neex naa gëm waaw léegi li fi des ci point boobu xasma hmm. jarul guddal waaw oh, nañ ko gàttal ba ñu tontu dans la journée waaw comme démb conseil des ministres am na hmm. tey dans la journée. waaw bi génn na. Hmm. te ba info bi génne dem ci point de presse bi avant avant bouclage journaux yi la. tabloïd yi donc démb rek mënoon nañ tontu. waaw amaana tey bu ñu jëlee seen temps xoolaat dossier yi xëy na dinañu wax. li des doon waxtaan ak seen njëgënaay naka lañ koy jox. te nag attention asma léegi attention ana xaalis kii ah, attention gars yi. Mm-hmm. léegi parti démocratique sénégalais ak Ousmane sunko ñoo bokk kàddu. ah ñu ne. Mm. na affaire bi génn. na koppar gi génn ana suñu xaalis sax nañ ñu tontu xam naa ci kanam tuuti rek dina gën a leer incha allah alors ci ñaareelum ponk actualité bi la ñuy daal di jublu rek Papa Sagne Seck législative report agité l'opposition la société civile et le non aligné en bloc pour la tenue de ces élections à date à date échue waaw waaw léegi Asma hmm. Sénégal naru élection fii ba Ila. eh à local législative à quatre-vingt-quinze pour cent élection locale wóorul moo am. maa la wax lii. waaw non d' accord. léegi. ah sa sa ministre moo la ko wax. loolu day indi troisième mandat par référendum bi ñuy wax de. wala wa wa xaaral. léegi d' accord waa d' accord. léegi. ah ah donc léegi. loolu fu ñu ko teg ba amee rek mbër lañ de. fu ñu ko teg. lay lay la laa. ñu ngi wax ay audit fichier. coronavirus ay kërëb kërëb ay coronavirus fichier bi dañ ko war a xoolaat en tout cas. professeur nag moo bi moo gën a placé. Euh, professeur moom dañuy xaar sax mi ngi ci mi ngi ci comité professeur donc bàyyi ñu wax nii rek. waaw waaw bàyyi bàyyi ba tegal la ko tegal la ko. merci ci biir prof. oui ah, prof. waaw élection locale yi. élection législative. on hmm. tend vers les présidentielles incha allah. le report qui n'arrête pas. lan la c'est quoi. la grande interview waaw mais euh, xam nga euh, depuis le début ñu ngi koy wax <laughs> lu tax euh, Macky Sall di continuer di di def ay low strack. Mm. xam nga dafa doon fast track la doon wax. Mm-hmm. mais ci affaire dialogue bi. Mm-hmm. ay low strack lay def. Mm-hmm. cest dire que moom dafa pareegul. mais. pareegul non pareegul. moom mm. moo bëggul organiser élection. moom ci boppam moo pareegul. waaw bu buggoon organiser élection. Mm. depuis première fois bi ñu organiser élection. dara empêché wul. Mhm. Sénégal ñu tenir élection. juste après présidentielle. lu tax pare locale yi. xam nga moom euh, mosoon na fi wax ne moom génn na ci amatul lu muy njun jàkk. Hmm? mais man de gëw ko. parce que euh, ba léegi mu ngi ci tànk yooyu damay jël benn exemple rek affaire audit évaluation bi ñu ci d'accord mot na léegi at. Eh? mais ba léegi dara amul. Eh? bés bu nekk suñu soogee réunion ñu leen wax fu affaire yi toll. Euh, ñu ngi naan waaw mais duñ ci def dara. Mm-hmm. dañuy bank seen loxo. donc ça veut dire que ñoom ñooy tardel yëf yi mais en tout cas position opposition moom. Mm. ak société civile ak ñeneen ñi. Mm. les non mooy. mooy ñu am en tout cas ñun opposition. Mm. pour ñun nañu respecté. ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo nekk ci nguur gi nañu respecté da de yi. léegi léegi merci. nañu respecté délai. jërëjëf. Mm-hmm. cela veut dire quoi. Mm-hmm. cela veut juste dire que il y a quelqu'un qui a une volonté manifeste. de souiller l'affaire. souiller maanaam waaw takkal ka saltel ka tilimal ka. Hmm. jaxase ka nga xamante ni moom na na affaire bi. jaxasoo rek daal zigzag exact léegi kooku kan la on parle de personne. li am na <laughs> cette personne existe. Hmm. on ne sait pas qui c'est. léegi kan moo war a organiser élection yi. état wu Sénégal. Hmm. dëgg la état bi dafa am ku ko jiite. dans un système normal d' état ku ko jiite sax moom dès lors que teg na planification bi moom yoonam nekkatu si loolu mhm. kay organiser mooy jël organiser mhm. mais comme dañoo nekk ci nguur présidentialiste mhm. un présidentialisme fort bi nga xam ne président bi moo waral lii léegi nag Sénégal ñoo war a wax ak kenn foofu nag dañuy wax ak kenn waa Sénégal mm. ñoo war a wax ak président Macky Sall mm. ne ko ne ko mun mun nañ lu bare mun nañ lu bare bëgg nañ la lool Sall fonk nañ la lool wekk nañ la yëg mm-hmm. naw ni doomu aadama ni sunu kilifa ci bopp réew mi. Mm. wante jëfin bi naw nu ka mm. mm-hmm. président ku la wax fii ci Sénégal tey. Mm. ne sénégalais yi kontaan nañ si yow ñu ëpp ci sénégalais yi ñu jàpp nañoo la voté cinquante huit pour cent ya sax tey. boo na nattoon tey tey tey joxe ay carte doo gañe dëgg bi mooy. il faut que ñu wax président de la République Macky yàlla moom nekk fépp. Mm-hmm. moom lépp mën lépp. xam lépp am lépp xasma naam nañ teg affaire bi si yoon ñu dem ci élection yi normalement kenn mënu fi reporter reporter ba teer ci ay élection présidentielle xanaa yooyu doo ko reporter ah. mm-hmm. nga wala nga da nga ko bëgg a def benn ah. jaxase ko gàddu ko gañewaat ko toog ah. naam naam lu ne mën naa ne mm. wante yàlla nañu yàlla mu muccal ci mm. Ousmane Sonko nag fenn la tëjee mm. mu ne waxi troisième mandat moom bu ko fi Macky Sall waxee lu rew li xew 2011 dana am Sénégal yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla nañ ci yàlla musal donc la haute responsabilité. Mm-hmm. est aujourd'hui entre les mains du président Macky Sall. justement euh, kon nag le message je pense qu'il est très bien placé euh, passé Papa Sane sénégalais ñoo ko dul sax nangu. Hmm. te nag sénégalais yi ma gis Mouhamed Diop. est-ce que liggéeyuñu ñun. ah hmm. gis nga sénégalais yi ma gis ni yow wàcc nga ci terrain bi ah. gis nga leen ci mbënd mi ak yooyu ñu ngi wax rek mais man sénégalais bu ñuy jug ji def nag jëf nag xam nga nan lañuy lan lay mel ah. gor bu sës ah. gis nga gor bu sës dootul xamati luy ngor dootul xamati waa luy sakk dootul xam dootul ci day mel ni ku génn dalal xel rek ji jëf dafa doon wax ne awma opposition hmm. loolu la doon wax hmm. man awma opposition mais fu mu mujjee doy na waar ah. romb naa président Macky Sall. Ah. <laughs> ci ci Bourguiba bi ñetti nit sax topp ko. voilà nekk <laughs> njiitu réew bi Macky Sall moo lay daal. bilaay walaay. Ah, war na cee baaxal nag. ah. ayca hmm? politisation de l'administration quand l'État se saborde. aywa gis ngeen de. Mhm. <laughs> c'est-à-dire que état wu Sénégal. tey moom da nga leen xëyee nag. da nga leen xëyee nag. ah ñoo ci 2012. 2012 waaw. ba 2020 le constat qui a été fait mm. et qui est vraiment amer désobligeant et, dé et désolant mooy que l'administration sénégalaise léegi amatul le sens de la compétitivité de la compétition du mérite simplement mm, mm, léegi xam nga loo am ci administration bi bokk benn bokk yaakaar pouvoir nga avancer mm-hmm. nga am statut mm-hmm. bokkoo benn la souffrance des gens yi nga xamante ni dañu nekk ci opposition bi nekk ci biir administration bi kenn xamul dafa raw na sa safaak marwa mm. te loolu du yoon ci dëkk boo xamante ni da nga ne da ngay wax émergence da ngay wax avancement da ngay wax développement le discours pompeux qu'on entend à tue-tête tout à gauche et à droite. Aïcha. Hasma. Naam. président Macky Sall amul droit jël suñu administration bi def ko ni mu ko def ku politiqueul doo nekk DG aujourd'hui on a des directeurs de société qui sont plus forts plus puissants que des ministres parce que simplement soi-disant waaw dañu am base dañu am base politique parce que asma moo mu nga dëkk euh, Wakaam mm. dégg naa am na fa mbooloo mm. nga jël asma teg ci kaw euh, Mohamed Diop mm. te Mohamed Diop gën a mën liggéey bi asma mm-hmm. loolu ça doit cesser président Macky Sall on comprend pas après nag bëri na gis nañu sax démb am na ku ñu interpellé xamatuma fan la mu ne yéen du ngeen wax lu baax ci président yéen waa Sen TV du ngeen waa Sen TV du ngeen wax lu baax ci président Macky Sall c'est pas affaire de Sen TV wala de quiconque xam nga lan la président Macky Sall bu tëjoo ci biir néeg moo gën a xam li ñuy wax lan la moo ñu gën a xam xam na ko moom la daan wax avant muy falu mhm. waa lan ko dal en tout cas dafa mel ni nguur daal boo xasee ba dugg mbubu mbubu nguur gi ngay sol dafa am lu ci ne loo xamante ni da lay xëy na nalaw loo loolu la sénégalais yi wax kii di euh, Moustapha Diack nee na faut une révolution mais qui ne connaît que la violence yàlla nañ ci yàlla musal président Macky Sall yaakaar naa ni non non non on va pas en arriver là non on va pas en arriver là kenn ñaanul yàlla tey suñu bokk yi di génn ci mbedd mi ñu leen di faat dafa am koo xamante ne du ko nangu oui mooy le président Léopold Sédar Senghor bi mu fi mhm. nekkee mhm. yàlla ki yàlla yërëm ak sunu papa bële sunu maam Jean Alfred Diallo mhm. nan la demee woon ba mu ko tiim tiimloowee ful bi. Mm-hmm. général bi dafa tiim ful bi. luñ ko santoon mu songu ful bi. Mm-hmm. dafa lànk looloo histoire. Mm-hmm. donc lu tax tey te sénégalais yooyu fi nekkoon am valeur ba dee. ñoo fi ne ba tey ñoo ñoo fees dell si arme bi. donc aujourd'hui ku yaakaar ni am nga doole buy tax nga influencer cette armée sénégalaise la nga xamante ni sunu ay papa sunu ay bokk. kenn du fi def kenn lenn. président bu fi toog defoo li nga war a def yow la naa seppi u teg la fële. te ñu ñu ah. ne ca jàmm Sénégal suñu gaal la uteg la fee lébu gi wax na de surtout lëb daaw waaw la doon seen nag maa au passage ki nga xamante ni moom moo di DG euh, Abdoulaye saw moom nag ndaw yi ñoo ngi rafetlu euh, taxawaayam ak euh, jiitalam ci fële ci diwaanu y a d'excellents agents et nous on a